asalaamaaleykum suñ mbokk téléspectateurs yi ñoo ngi am mbégte ak contentement di dalal ci ganu Equivox ki nga xamante ni moom mooy monsieur Ousmane Gueye doon maire de Médina Sabakh doon PCA bi nga xamante ni moom moo nekk fii si foire ñoo ngi lay dalal si ganu Equivox monsieur Ousmane Gueye di la bàyyi nga nuyu suñ téléspectateurs yu lay seetaan bon merci Ali Thiam mhm. donc dama lay gërëm d'abord euh, avant ma ñëw ci équipe bi Equivox mhm. euh, parce que lépp ci yow la dépendre la jaaree mm-hmm. yàlla may ñu tey ñu nga ooma ñu waxtaan mm-hmm. alors ci safar bu ñuy def mm-hmm. fii ci foire nga xam ne sincèrement amical bi moo ko def daayira Touba Cissas moo ko def nga am vraiment ak sa équipe ñëw couvrir ko profiter nag pour ñu ubbi waxtaan alors maa ngi gërëm ñëpp alors ñi fi nekk équipe bu nga xam ne tey moom la Equivox déplacé. Mhm. jërëjëf euh, suñu waxtaan ñoo ngi koy commencé si li nga xamante ni mooy ndombo tànk boo xamante ni dañ la ko fal si na Sabakh nga doon maire de la commune de na Sabakh mu doon commune bu yëngu te suñuy wax département Nioro électorat bi moo ngi ëppee li nga xamante ni moom mooy sa commune de Médina Sabakh ñu jëm si ay élections locales bon bilan moom nga am au niveau de la commune. d' abord rappelé rek euh, que ñu bëri dañ koy réeree mbir. Mhm. Euh, Médina Sabakh euh, commune bu am doole la bu ñu wax am doole c'est sur euh, le plan population ak euh, sur les enjeux électoraux mooy commune bu nga xam ne moo gën a peuplé ci département Nioro mooy commune bi nga xam ne mooy deuxième derrière la commune de Kaolack bu ñu jëlee région bi yëpp donc c'est important boo ko boolee ak commune Ngayane ak commune euh, Kayemor c' est vingt huit pour cent de l' du département qui gagne l' gagne le département de Nioro c' est normal que mu nekk enjeu politique et depuis lors référence la ci la ñuy testé ci la ñuy testé alors ci la ñuy testé alors les projections de défaite et de victoire à partir de l'arrondissement de bu fekkee nag xam nañ politique bu baax euh, donc euh, PDS de deux mille jusqu'à deux mille douze n'a jamais gagné même Moussa te moo nekkoon dans le pouvoir. alors qu'il était au pouvoir c'est toujours le PS la commune de Médina Sakh mosul am am alternance démocratique mu ngi door a am ci Macky avec moi. en 2014 en 2014. Mm -hmm. et 2014 chaque parti dafa demal boppam élection APR dem PS dem AFP dem te pourtant avant comme dañ nekkoon ci Benno Bokk Yaakaar dama jël suma tànk wax ak PS ak AFP pour ñu ànd ndéng Tanor yal na ko yàlla yërëm ànd na ak président Macky Moustapha Niasse ànd na man aussi ma ñëw au niveau local pour ñu ànd ñu bañ bu buñ baña nag lu ci des mooy xeex politiquement. Mm. gën a teg sa. Euh, kon Benno Bokk Yaakaar ànduñ ci élection locale yi en 2014 alors donc yooyu aussi c' est important. c' est comme dans aussi suñ ko waree souligner est ce que du am benn euh, li nga xamante ni conséquence si élection ñu jëmaat. non c' est à dañuy dem Benno Bokk Yaakaar loolu mooy euh, le président spontané mais Nioro mm. demuñ Benno Bokk Yaakaar en 2014 APR dafa demal boppam. loolu aussi il faut que sur le plan de l'histoire ñu xam ko dans la mouvance présidentielle APR e dafa bëri liste c'était des primaires Nioro y avait plus de sept listes les six c'est dans la mouvance présidentielle mais situation dans chaque commune y avait des listes parallèles du parti de la coalition au pouvoir mais Ousmane Gueye mais à partir de ce moment président Macky dafa financer jox le même budget mhm. ne leen c'est des primaires qui gagne c'est toi le leadership donc depuis 2014 les maires qui sont élus au niveau du département à partir des primaires justement sur la base des liste qui ont compété aux élections ñoom ñoo génn c'est les patrons de leur localité c'est ça la référence historique donc da ngay conclure ne Ousmane Gueye est le patron mais bien sûr il y a pas de doute maintenant tey tey tey tey même bu fekkoon na parti et c'est pas le souhait de Benno Bokk Yaakaar c'est pas le souhait de notre président du suma souhait mais bu fekkoon ne parti yëpp dañuy dem la paire va sortir majorité ok mais ñun quand même nous voulons une unité très forte merci beaucoup coalition mais suñ falee maire dafa am lu tax ñu fal maire dafa am luñ ko dénk di si xaar ay résultats Ousmane Gueye yan résultat la def dans la commune de Medina na en il y ak foo fekk commune bi ak foo. voilà euh, côté boobu dama bëgg aussi. ñu waxtaan ci lu baax. c'est vrai que commune. bilan la. oui mais bilan. ñaari mbir la. bilan mooy réalisation yi nga xam ne dañ ci teg bët. yoo xam ne mën na si dugg mais bilan. mooy le bilan immatériel aussi. y a le bilan réel. y a le bilan matériel y a le bilan immatériel ku mënta gis basé sur le social. Mhm. le bilan immatériel en général prédomine par rapport au bilan réel sur la base de réel d'après la conception de l'état démocratique de nos populations diw am na njëriñ sur le plan social si au néglige le plan social ñu teg ko de côté yaakaar dañuy tabax rek dañuy def pour l'intérêt général on risque au bilan. mais ci ñaar si ñaari côté yëpp il faut combiner les deux non olof la ñuy defee. ñaar ñaar ngay combiner. réalisation lan ngeen def. Mhm. parce que aussi. il faut ñu jéem a faj soxla askan wi. ci l'on prend santé ci mbiri. tali yëpp est-ce que man man mën ngeen xam. ma départ 2014. Mhm. avant ma ñëw parce que boo ko xamul ya avait rien. ñaari dëkk ñoo ñu amoon courant. référence bu ndaw rek. mbaa bokkul ak dëkk kër ay. mbaa nekkul dëkk bokkul ak dëkk yu bugaan kay. Medina Sabaax moo amoon courant ak kër ay. ci juróom fukki dëkk ak juróom-ñett loolu lañ nga ñëw diggante Kaymoor ak na Sawax pour nga jógee Kaymoor Médina Sawax dix-huit kilomètres da ngay dem ba Firgi croisement Firgi nga tag dem alors que man ngay am yoon yam amul yoon si lañ def piste dix-huit kilomètres PUDC bu nga xam ne moom la ñuy utiliser ba léegi diggante ngayen également il fallait connecter ñaari communes yi ñu def piste donc yooyu c'est des réalisations fortes pour la commune de Médina Sawax dama ñëw def ñaari forage pour régler problème d'eau Sénégal ba Sénégal jaax amul benn commune bu réaliser deux forages en un an mooy Santhi Médina ak Kër Sène ñaari forage yu impacté totalement fii ñu toll nii amul benn dëkk bu amul ndox commune mel na sax pour la première fois dëkk yëpp am ndox non seulement am na ndox mais ñu ngi intensifier alors euh, le euh, le tuyau alors abonnement yeeg réseau bi ñu ngi koy yokk dañ ñëw poste maintenant nga xam ne mooy capital dangay ngay ñëw nawet jigéen ñeeg malade yi dañ daan toog ci suuf amul salle d'attente ci laa ko def école yi délabré école un douze classes ma ñëw nga xam ne mooy école de référence fukki classe moo fa newoon parce que c'était complètement délabré j'ai mis sept millions parce que quand mooy école bu njëkk a tabax mel na sax nekk ci tali bi je pense que il fallait régler cette question ma ñëw gis dëkk yi nekk ci àll yi yeneen village école yi amu benn école bu nga xam ne am nga douche sanitaire même jàngalekat yi dañ naan jàngale bu ñu bëgg a def seen besoin dañuy dem bi cette situation je l'ai réglée donc ça c'est important alors ma appuyer case des case de santé yi fi nekk yëpp ñu appuyé leen dem kër Samba Counda nga xam ne c'est à quinze kilomètres mel na sax dañ ko daan fàtte alors ma tabax fa benn euh, euh, euh, poste case de santé bu nga xam ne c'est comme un poste de santé mm-hmm. kër Samba Counda moo nekk frontière mel na sax avec commune Prokhane donc yooyu c'est des réalisations sur le plan de la santé ok nga ñëw éducation mm-hmm. lu ñuy def ci éducation chaque année c' est excessif. non soo waxee éducation wax santé loolu domaine de compétence. mais loolu dañ la siy félicité. mais soo ñu waxee tali wax ñu forage. loolu état moom moo ko def waaw mais état. moo wax la benn affaire. personne ne peut faire un bilan de réalisation dans une commune. bu fekkee ne état deful. ku la ne mën nay réaliser benn classe. su ma recette propre waxul dëgg. amul merci d' être loolu merci d' être honnête si loolu. merci d' être honnête si loolu ça veut dire que état muy partenaire bu gën a mag ci collectivité locale. waaw ah, parce que ñu bëri dañuy. non lu tax nga wax loolu c'est important parce que ñu bëri dañuy jël réalisation yi duñ si tudd sax état na ñoom. mais état mooy réaliser. Mhm. na tout dépend rapport yu maire bi am ak état. Mhm. loolu moo tax. Mhm. buñ xoolee il y a avant Macky ñëw. mais lu Ablaye Wade def dafa di nga daa lan la de département ñoo doon ci nguuri Ablaye Wade arrondissement na sa wax lan la bénéficier ci nguuri Ablaye parce que Ablaye Wade n'a jamais gagné na sa amuñ benn lampe bu ma sa tàkk benn dëkk masul tàkk pendant douze ans ci régime Ablaye Wade amul benn piste buñ fa war a def amul benn infrastructure buñ fa ça veut dire que la commune n'avait pas de réalisation bilan négatif non ça veut dire que bilan bu ko mën a am da nga koy articuler à l'état du mais soo ñu waxee lool ak ses est-ce que mën nga ñu wax tey si biir Equivox TV ndax Ousmane Gueye est candidat encore pour la mairie de xam nga man candidat ma bëgg na candidat la même 2014 nekkuma candidat c'est les populations ñoo ne Ousmane Gueye lañ bëgg mu nekk candidat cest à que en euh, tant que en tant que témoin de l'histoire fekkee neen ko mais en deux en 2021 est-ce vous êtes candidat coalition Benno Bokk Yaakaar même bu ma neexul bu fekkee ne askan wi ne dañ bëgg nga continuer liggéey bi moo continuer ko. comme si askan bi la dépendre. c'est ça c'est les populations. Mhm. c'est pas moi ma personne ne compte pas. Mhm. tey tey tey buñ ne diw la ma responsabilité ci APR ak benn c'est de tout faire pour que le candidat choisi va gagner. kuñ kuñ mënti teg pare pour jàppale ko c'est la coalition. l'essentiel est-ce que au niveau départemental am na dialogue parce que lu ñu gis ci coalition Benno Bokk Yaakaar mooy ñii dañoo jaar nii ñii jaar nii division boobu es ce que am na njëriñ ci yéen. waaw mais de toute façon division amul fi xam nga. non non division amul fi suñ gisee suñ suñ gisee Aly Mané Lamine Dieng Ba toog waxtaan. man dama gis ñoom ñëpp. après maire yi ànd ak ngeen ah, yow nga ànd ak yenn maire yi tamit jaar a côté est-ce que loolu ça vous arrange. ma man dama lay wax moi je suis un responsable. Mhm. a part man le njëkk a nommé au conseil des ministres en tant que cadre dans le département de Nioro. nga doon PCA man man mm-hmm. man maa njëkk man rek maa nekkoon en 2012 dans le comité comité euh, de Macky pour les élections dans le directoire de campagne. waaw posture boobu laa la wax. mais donc c'est ma responsabilité historique. Mm-hmm. ma incarné leadership. de la paire dans le département donc. lan mooy am division APR la bala ngay massifier il faut créer unité ci APR. mais su liiree ñu ne ñu carrément la population du département de ñoo Dirib investi Ali Mané moo ngi si réseaux sociaux yi nit ñi giseen ko Maanaam Sow moo doon président conseil départemental eh. mais loolu c'est-à-dire que soog des ambitions am na soog des ambitions am na seen biir te waxtaan amul dama bëgg ñu waxtaan bu baax waaw xam nga population mooy nan man mel na sax laa dëkk man mairie mel na sax est-ce que wax naa ne man dama investir Alimane est-ce que dama wax ne dama investir Samba mais kon bala ñuy wax departement département nañu régler communes yi si on peut pas gagner les communes on ne peut président conseil départemental kon d'accord nga ni ak ñun ne yéen waxtaanagu leen seen biir mais ça veut dire seen biir kon waaw nga yow bu la neexee nga ne candidat président conseil départemental ku koy tare non man yéen laa wax en tant que coalition Benno Bokk coalition Benno Bokk Yaakaar tooguñ ne diw mooy nekk fële. voilà loolu diw mooy nekk fële. waaw ku nekk yaa ngi e nekk yaa ngi liggéey sa côté bu la neexee nga ne. Mhm. bu ma nekkee nekk président conseil département bu ma neexee nekk candidat maire. mais en tant que postir boo wax nga doon premier cadre bu ñu nommé dans le département de Nioro du PCA fois tey naka ngay def ba dajale njaw sa njaboot. mais dañ dajale après émission bi dès la semaine prochaine on va se retrouver kooku amul problème parce que ñu ngi ci liggéey. parce que nit ñi bu kenn nax sa bopp lu ma mën a wax muy le président du conseil départemental de Nioro sera un responsable de l'APR Malaw Sow dama ne sera un responsable de l'APR beaucoup voilà la réalité maintenant par rapport justement à ça la première responsabilité légitime historique mooy Malaw il reste le coordinateur départemental de l'APR donc pour autant c'est lui le candidat jusqu'à preuve du contraire nga xam ne Macky nga xam ne c'est le patron suprême il peut avoir des raisons pour dire oui je préfère Samba ou Demba mais léegi. pour le département hmm? c'est l'APR et l'APR maaloo moo ko incarné au niveau département avant ñuy dugg si côté foire pour ñu tëjee département Nioro Drip tey ban message ngay wax sa coalition ak sa waa lu may wax moom lay sa coalition ak sa waa euh, d'abord pour mën na sa wax mhm. euh, y a pas d'enjeu y' a pas de danger parce que pourquoi ma ne a pas de danger parce que il faut aussi ñu xam contexte. élection yi élection yi mooy est les élections yu nga xam ne. c' est le pouvoir contre l' opposition. y' a pas autre chose bu fekkee defuñu lecture boobu. aujourd'hui coalition yu formée au niveau national lan la ñu wax. on va tout faire pour prendre le maximum de communes entre les mains du président de la mouvance de Benno donc ñoom seen bataille. ces prétextes local pour viser le président la République mais ñun aussi da nga foog ne ça veut dire que la connotation politique lecture politique élection locale yi kenn mën na ko dindi. mais yow en tant que ah, mais yow en tant que maire nga am toutes les informations de Médina Sabakh ñu seetaan Bougane Gueye Dany bërki demb mu toog fee nu mu tuddati 7TV ak may mun a dire mu na Médina Sabakh quatre villages lañ fa. électrifié sur 564 looy wax si loolu. mais lu may wax mooy Bougane ça veut dire que nga xam ne da nga ne leader national nga président de la république nga bëgg a ne nga teg télé nga ne mën na sa wax cinquante villages quatre ñooñu alors que fu muy wax. mais en tant que maire de fu muy wax fukki dëkk ak juróom ñu ngi tàkk. kon jarul sax ay ça veut dire que il connaît pas mën na sa wax xamul mën na sa wax amul information buñ ko jox bu viable. ça veut dire que amul représentant sax man mu nekk maire amul benn responsable bu nga xam ne xam naa ko ci commune benn sax ñu ne Bougane laa. donc kon yow en tant que maire confirmé carrément ne cadre village. mais kooku yaa mais cadre village xanaa c'est avant Macky Sall la bëggoon wax ça veut mu ngi confondre le temps mel na sax commune mel na sax cinquante villages fii ñu toll nii quinze am na courant sans compter les mini solaires qui vont être installés. sans compter projet énergie OMVS bu nga xam ne y a huit villages qui sont bénéficiaires donc ils ne maîtrisent pas jërëjëf monsieur Ousmane Gueye alors que man muy maire mhm. bu ma owoon laaj ma même s'il est opposant ma jox ko les informations véritables merci pour cette note maintenant fu may terminer mooy Benno Bokk Yaakaar mhm. damay lancer benn message important mhm. euh, Benno Bokk Yaakaar dañ dem élection 2014 amul benn commune bu opposant gagné toutes les communes Benno moo ko dirige aujourd'hui ñu am contexte bu nga xam ne on est défié par l'opposition ñun ñoo war jox la réponse ñun ñoo war nekk à l'initiative à l'anticipation et non pas à la défensive lu ma bëgg mooy ñu dégluñu ne nit ñu toog travailler dans leurs communes respective Parce que la bataille, avant de penser au département, il faut d'abord gagner la commune. bala ngay dama bëgg conseil départemental assurer na damay gagner suma commune. muy APR muy parti allié. loolu lay ñaan ñëpp. c'est ça beneen bi mooy l'APR est un parti très organisé représentatif mais luñ am représentant war nañuy respecter également. la dignité des autres partis alliés. ñu jox leen considération mhm. mais partis alliés aussi nañ jox APR considération loolu bu amee toog mën nay am mhm. ñu waxtaan chacun les rapport de force xam nañ ko mhm. boo demee n'importe quelle commune tey Ali ñoo nga dëkk boo nekkal xam nga malgré que parti yi fa nekk muy AFP muy parti socialiste muy IDI muy APR bu ñuy wax dëgg le leadership politique bu décidé wu dans la commune xam nañ ko on n'a qu'à le pousser pour incarner justement le leader la tête de liste départementale pour yaakaar ne ne message boobu maintenant aussi nañ bokk boole ci xale yi ak jigéen oh. parce que les jeunes merci sont très représentatifs lu ma gëm c'est pas de compétir na Samba ak Demba ma war a nekk maire xam nañ kan moom war jiital pour mu nekk maire bu fekkee ne dëgg la ñu wax mais kenn war a jiital aussi na xam ne xale yi demee il yo prendre nos pour jeunes yu bëri nekk ci liste yi. pour man les cinquante pour cent de la liste dañu war a nekk ay jeunes et des femmes des jeunes. merci beaucoup loolu tant que defuñ ko. Mhm. ça ko dire que préparer wuñ notre relève. loolu den si waxaat mais may. beneen affaire bi aussi. Mhm. mooy il faut que au niveau des départements quand même qu'on soit plus généreux est-ce qu'il est inadmissible ça c'est un point de vue personnel. benn maire bu nga xam ne depuis trois mandats commune rurale yow yaa ngi koy yore c'est vrai que tu fais de résultats mais tu peux avoir un bilan positif être généreux ne du man ma maa fi nekk mais ça c'est des choix personnels mais bu ma sañoon aussi au niveau des communes boo defee ñaari mandat yu nga xam ne franchement liggéey nga population yi sant la même buñ bëggoon war ngay man un Aly Thiam il est bien parti allié la ou bien son parti la bokk moom aussi naa ko am nga fa ay jeunes yu si mais les jeunes ñëpp a intégré moi pour une équipe très rationnée en perspective je pour une responsabilisation de plus en plus des femmes mais si perspective yooyu noonu mais je suis également pour que les partis dans ma commune membres de Benno qu'ils soient impliqués dans une dañoo for benn information ne yaa ngi dox ak le jeune Pape Gueye bu ANPEJ pour benn banque boo xam ne daf fay ñëw par rapport à l' emploi des jeunes. waaw waay est ce que mën nga confirmer loolu. oui je le confirme ñu ngi ci waxtaan te y aura à peu près cent femmes euh, bu nga xam ne dañ bénéficier rapidement benn financement bu nga xam ne ñu ngi ciy préparé te sori nañ ci. et je remercie Pape Gueye mhm. avec une institution financière de la place donc franchement je le remercie beaucoup mhm. mu ngi liggéey actuellement je pense que loolu laa gëm dans chaque commune je pense que lu ñu war mooy nañ jàppale xale yi jàppale xale yi mooy les mettre en responsabilité mhm. am confiance si ñoom ñu jouer parce que quand même c'est l'espoir de demain c'est notre alternative également message bu am solo la pour jàppale xale yi message yu am solo la pour préparer les relais de loolu yaakaar naa responsable yëpp au niveau national ñoo si war a dox parce que jeunesse bi aussi man neen wax ne c'est jeunesse perdue mais li nga xamante ni aussi moom mooy foire nga doon le PCA ñu toog ñaari at ba ren mu doon ñaari at yoo xamante ni foire amul loolu ñu koy expliquer. mais Covid bi la. Covid bi dajale nit ñi. bon Covid bi. ban impact économique la am si réew mi toog. si sas euh, chiffre d'affaires am yooyu yëpp si sas foire lay lay dunde ak euh, salon euh, depuis deux ans a difficulté la ñu am mais xam nga lu importance si entreprise mooy la capacité d'adaptation c'est-à-dire la résilience mhm. il faut s'adapter pour vivre parce que doona rek ama salon ama foire donc damay croiser les bras. mais ban stratégie ngay. heureusement que. merci euh, nous avons un très bon directeur général. Mm -hmm. Salou Keita que je remercie au partage. am na initiative am na anticipation mu ngi kii mu ngi dugg mu ngi génn. Mhm. aujourd'hui franchement barki démb rek lañ adopté le plan stratégique. Mhm. deux mille vingt et un deux vingt quatre le contrat de performance. Mm -hmm. euh, avec le dans le conseil d'administration. mu ngi démb rek patron bâti ñëw na fi pour voir na la ñuy référer tous les bâtiments administratifs mhm. te ça c' est important mhm. e quelle que soit difficulté yu ñu am alors euh, ñu ngi bénéficier la subvention de l'État même si on pense que cette subvention war na mën a yokk e on est heureux parce que depuis lors malgré difficulté yi ngeen am wax qui se justifie amul foir amul beneen activité amul benn mois. parce que amul benn mois buñ toog. nañ jàpp ne foire tamit su amul Sénégal après man dafay créer emploi si période bi mu am. mais amul benn mois ba mois buñ mës a toog dans cette période. ñu am problème paiement de salaire malgré nos difficultés ñu ngi gérer personnel bi maintenant euh, foire ñu ngi koy def au mois de décembre 5 décembre nekk nañ en avance sur les préparatifs te incha allah cette année. on aura benn foire bu nga xam ne yaakaar naa te ñëpp am nañ ci yaakaar dana nekk réussite bu am doole. Mm-hmm. et euh, le président également on le remercie parce que y a beaucoup de choses yu nga xam ne amuñ fi alors ñu ngi ciy préparé de foire au niveau de l'environnement xool ngeen ko cadre bi changé na la réfection des bâtiments sera en cours tout de suite alors beaucoup de pays yu nga xam ne mosuñu ñëw foir pare nañ ñëw foire. am nañ ay partenariat yu xam ne signé nañ ko avec euh, les saoudiens je pense que dans le cadre du partenariat vraiment de DG est de faire un excellent travail. jërëjëf tey ngeen di def li nga xamante ni moom mooy seen safar si foire. ban moo nga am. pour wax waaw safar bi amical euh, daayira dañu am benn daayira bu dynamique bu xam ne mooy daayira Touba Cissas euh, première fois bi cent mille lañ déparé. bi mooy troisième édition deuxième édition pratiquement troisième édition daaw amuloon Covid bi daaw jeg amoon na donc euh, cent mille lañ gaa ñu cotisé woon départ parce que ay murid lañ euh, mais la particularité si sas mooy mm-hmm. te loolu si waxtu bi daayira bu ñuy def ni personnel bi ngay tijaan ngay laayin ngay cadre ñëpp ci bokk te démbul démb alors bu ñuy def évaluation Euh, communauté bi nee nañ moom mais président vraiment luñ lijjanti dafa dépassé suñu espoir parce que ñëw nañ on est à peu près à deux millions cent de cotisation et d'appui ça veut dire que c'est talent de solidarité alors si ça se continue renforce le climat le, le climat social c'est important parce que day renforcer les liens entre nous mm -hmm. et aujourd'hui le DG sera là le président conseil d'administration sera là ak certains administrateurs donc ça veut dire que cet unitaire de solidarité c'est important pour impulser davantage l'essor et la croissance de l'entreprise. ban kàddu lay Ousmane ban kàddu lay Ousmane Gueye di wax ci Equivox TV. waaye gërëm Equivox parce que yàgg na leen déglu da leen suivre euh, franchement groupe de communication bu am doolal. am expertise. Mhm. en général. Mhm. alors laal ay. domaines yu nga xam ne c'est des domaines très mm-hmm. pointus nga xam ne askan wi mboo ko soxla mm-hmm. parce que il faut ngeen ay laal lu nga xam ne mm-hmm. nit ñee ko bëgg euh, Equivox vraiment est reconnu de par justement son expertise Merci beaucoup. sur la communication, mmh. son ouverture mmh. et son sens élevé des responsabilités. Merci beaucoup. Là aussi c'est important. Jërëjëf. Alors donc lu nee ñaanal rek mooy ay ndaw ngeen comme le chef le président de la République les gens doivent vous accompagner. Merci beaucoup. doivent vous soutenir mm-hmm. et surtout parce que aussi sans le soutien mën ngeen am ay ambition mm-hmm. mais c'est les ambitions s'arrêteront à ce Merci beaucoup. Donc je pense que man je vais continuer de vous appuyer. merci beaucoup alors euh, fu ma dem aussi. je vais de votre label. de votre dynamisme. pour que les gens comprennent que vous pouvez être vraiment un très grand groupe de communication pour l'entrée des populations l'entrée du Sénégal ban kàddu ngay tàggatoo di tàggu tàggu sa mbokk bi na sabax département Nioro ak coalition boo wa waaw mel na sax maa ngi wax ñëpp da leen ay surtout nag su ma nit ñi nga xam ne ñu ngi benn Bokk Yaakaar nen dal xam ne aujourd'hui inutile moo baax ci ñun euh, compétition c'est bien ambition c'est bien mais buñ toogee waxtaan je pense que amul problème bu ñu mënta régler pour le département Nioro damay lancer un appel à tous les leaders leaders yi commence d'abord par le camarade Malo Sow mhm. c'est un responsable historique de la bu mu yem foofu na tàllal loxo tout le monde moom de DG ji Ba Lamine Dieng Ali Mané qui est un quand même un parti allié Serigne Mbaye alors euh, député Diema Ndiaye les Alou Kabe tous les responsables muy PS muy AFP ne toog oo leen ñu toog waxtaan mm-hmm. ñeneen ñi aussi ne accepter que s'ils sont dans l'APR ma quand même Malo a été le premier responsable de l'APR mm-hmm. ñu si bëri yàlla dafa def Malo moo leen dalal ou bien man maa leen dalal mm-hmm. donc nañu reconnaître notre légitimité historique à partir de ce moment waxtaan mën nay am mm-hmm. mais bu fekkee ne ndomba tànk ñu la jox da nga ne ndomba tànk permettre na man maa nekk ci kaw kenn ki du ma waxal là aussi ça pose un problème en tout cas man maa seen doyen merci beaucoup man mu nekk seen doyen dama jàpp ñëpp ne c'est des grands responsables ceux qui sont maires la plupart ont fait un excellent travail même si on peut objecter sur le bilan Merci. mais à partir que le Benno reste fort dans le département les partis alliés aussi nañ toog dégluñu à l'endroit de Ali Mané lu ma koy les descentes répétitives au niveau des communes d'autrui na toog commune am on lui confère ça dans Benno Bokk Yakaar mhm. sommes d'accord pour un consensus mhm. qu'il soit le maire mais pour autant aussi ne respecte notre dignité et notre considération en tant que maire mhm. au moment du choix on verra merci que ne la nga mérité ak contexte du moment mën nañu wax ne mais ñun on peut préférer diw comme député parce que ça se fera la même année c'est parce que ça aussi des choix les choix des postes buñ foog ne dañ koy basé rek ci yi on va combiner les choix pour les listes de députés et les choix pour les positions électives dans les communes. Merci beaucoup le maire. si on le comprend comme ça buñ tax chacun aura sa place là-dedans mhm. chacun aura le mérite mhm. qui lui revient mhm. mais que dana toog commune ne liggéey pour faire face à l'opposition merci beaucoup monsieur le maire sinon on peut comprendre de par leurs actes qu'on n'est plus adversaires entre nous et on n'est pas des adversaires on est des merci beaucoup les adversaires c'est ceux qui sont dans l'opposition mm faisons face à cette opposition et soyons unis dans Benno. merci beaucoup et respectons-nous. merci beaucoup c'est le message que je lance à tout le monde. merci beaucoup monsieur le maire. suñ mbokk yi nga xamante ni yéen ñuy seetaan ci biir Equivox TV di leen fàttali ne kii mooy Ousmane gay dëkk dëkk bi nga xamante ni moom mooy Médina Sabakh mu doon dëkk bu ñu neex aussi. parce que boo doon neen ndaw yoo xamante ni bañ bàyyee jàng juróom-ñaari at di jàngaat sa dëkk lañ jàngee di na Sabakh nga doon suñ maam tamit suñ nijaay yëpp nekk fa ñu leen nuyu Sa Gueye Omar Gueye Sefa ñoom Pape ñoom ñëpp di kontaan ci biir Equivox TV dafa doon groupe boo xamante ni ay ndaw ñoo ko teg di gën a kontaan ci Mamadou Seck bi nga xamante ni moom moo am confiance ci yi jiital ki nga xamante ni moom mooy El Hadj Diouf suñu directeur ànd ak Balde suñu infographe mu dëkk Mbour doon Mbour doon technicien tamit ñoo ngi koy sant di ko gërëm bu baax fépp fu ñu mënti dam ak lépp lu ñuy def dafay ñëw si liggéey bi di gërëm suñu jarbaat moo duxule mu dëkk Nioro Drip doon na koo xamante ni ba ñuy xam Equivox TV moom moo ñu ko xamal moom moo ñu fi indi ñoo ngi koy sant di gërëm bu baax bi Bibar Seck moom tamit ñëwul tey ñoo ngi koy sant di ko gërëm di leen wax ne lii mooy suñu liggéey comme ñu ko waxee saa su nekk mi opposition mi pouvoir corps civil activiste képp ku mu mënti doon soo buggee waxtaan ak askan wi am message yoo bëgg a wax askan wi dinañ tàllal ñëpp suñ micro parce que suñ jàppee support de communication ne pouvoir moo ko moom wala opposition wala ñii ñoo ko moom amul benn sens ñun suñ support de com dañ ko teg pour le Sénégal pour liggéeyal Sénégal ci àdduna bi yëpp ñoo ngi leen di jox ay dig daje ci émission yu gën a yaatu ak waxtaan yu gën a yaatu yoo xamante ni sénégalais yi ñoo ngi ciy gis seen bopp di leen wax ngeen ñuy topp di commenter lu ñuy def di ko partager di ko aimer wasalaamaaleykum wa rahmatullah et à très bientôt allah